طيب الدرب وال you have any questions that you want answered during the holy month of Ramadan, all you have to do is to send us a on the following numbers. AfriCell on 2020 200, QCell 30 30 300, Comium 60 60 600 or on the Gamcell line on 999 0909. Your questions answered this Ramadan on GRTS.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 wa sallallahu ala sayidina wa maulana muhammadin wa sallim mbokk yi ñoo seetaan ñiy déglu ñu ngi dellu si waat ak yéen ci suñu programme minbarul islaam waaye li ñoo wax nag ne léegi li nga xam ne moom la moo xew ca mu ci lañ nekk muy ramadaan di ñaan yàlla mu def ñu fekkee ko beneen at ak lépp luñ ci jaamu yàlla nangu ko mel ni tontu woon nañ ci ay laaj yoo xam ne ñëwoon na keroog wala laaj yooyu ñoo ko far doon lu mel ni lan mooy koor léegi waxoon nañ ne koor mooy nga jàpp ci bépp bànneex boo xam ne bànneexu bakkan la lekk ak naan ak bànneexu boo xam ne dangay njëkk a éene ci guddi ga nag mu fanaanoog loolu ne loolu daal ci maanaa bu gàtt mooy nekk koor waxoon nañ man la si amarana bi saw mu kan moo ñu teg digal nag léegi pour ñu oor muy yàlla suñu boroom tabaraka wa ba tey moo ñu ko digtal fan lañu ko digtal léegi nga mun a wax ci alquran ci ti aaya bi muy wax naan kutiba aleykumu siyaam léegi ba aaya ba jeex ci waxu yonent bi sallallahu alayhi wa ci ijma bi nga xam ne léegi ñëpp boroom xam-xam yi d'accord nañ ci indi aj indi léegi koor wala waaw indi weeru koor bii mu nekk eh, farata boo xam ne dam ko teg ci kaw jullit yi eh, waxoon nañ itam nag walla li nga xam ne moom lañ war a wax tey nag mooy limaasa na suum la tax ñuy oor la na tax ñuy oor bu fekkoon ne dafa nekk question wala question boobu ne lu tax ñuy oor nag mooy ne pour ñu àgg ci martaba bu ñuy wax taqwa martaba boobu wan ñu àgg ñu àgg si ci mooy taqwa pour ñu àgg ca lan mooy taqwa nag ak mooy ñan ñooy mu taqi nii ñu ragal yàlla taqwa mooy ragal yàlla ragal yàlla boo xam ne tënku na ci bosam tënku na ci li nga xam ne moom la ko yàlla santa ba léegi lépp lu ko yàlla sant mu ngi koy def waaye lépp loo xam ne yàlla tere na ko ko itam mu ngi koo bàyyi yàlla njëkk a wax rek ne inna allaha mahal muttaqin ne léegi yàlla sax ñuuñ la àndal ñi nga xam ne dañoo ragal yàlla ñooy ñi nga xam ne ñoo ànd ak yàlla léegi ci boo demee ci alquran bi nga xam ne mooy téere bi mu wàccee ci weeru koor bi itam mu di ko wax ci alquran ne alquran mu ngi ko wàccee ci weeru koor maanaam ci weeru koor la commencé wàcca boo demee ca commencement piire ba ci suratul baqara ca boppu saar ba rek dafa commencé ne alif laam miim saalikal kitaab laaree ba fii hudan hudan laaree ba fii ne hudan lil muttaqiina mu indiwaat baatut muttaqiin ca mooy ñi ragal yàlla foofu su mu ne mu ne nag léegi ñi nga xam ne ñooy mu taqiin mu taqiin yi ja nga xam ne waxoon naa la fi léegi ne mooy ñi ànd ak yàlla mooy moomi nuun mu taqiin yi mooy ñi nga xam ne gëm nañ yàlla itam waxoon nañ fi itam affaire gëm yàlla gëm muy mbir moo xam ne dafay nekk ci xol xolu doomu aadama ca duut loo xam ne lu oyof la wala loo xam ne niñ ko foogee la ne léegi dafa nga koy tudde ci sa làmmiñ nii rek waaye dafa doon loo xam ne danga ko war a dëggal ci sa xol parce que waxoon nañ fi ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu ñëwee di oote islaam dafa sax ci dëggal shahadatu an laa ilaha illallah ne léegi loolu na ko saxal ci xolit nit ñi ba nga xam ne gëm nañ gëm googu su demee ba ci xol yi rek ëllëg lu ma leen mën a indil dinañ ko mën a jàppa bu boobaa dootuñ amaat ci xel ñaar waaye loolu nag ñu ne woon sax na ci fukki at ak ñett di oote pour léegi nit ñi di leen wan ne yàlla yu bari yi ngeen wax yépp amul waaye li am mooy benn yàlla ñoom itam ñuy gisee ko ne ñun suñ yàlla yu bari yépp mënuloo faj suñu aajo bon benn naka lay koy mën a fajee bi amoon nañ fa waxtu wu gudd woo xam ne mu ngi jéem a faxas jéem a raxas ci xol yi bañ set mu dugal fa ne yàlla kenn la loolu ba mu duggee gis na njëriñ yi nga xam ne indi na ko njëriñ yi mu ko indi mooy ne lim loon indiliwaat ba mu indee julli jafewut ci ñoom mu indi koor jafewul mu indi aji màkka mu indi benn ponk boo xam ne indi nañ ko rek léegi gannaaw boo xamee ne lii saxoon na gëm gii saxoon na ci seen xol yi dara diisatul ci ñoom lu nekk rek dafa yomba loolu dañ ciy joxe exemple ne léegi ba nga xamee ne sàngara wàcce na aaye sàngara kon wàcce na ñoom amuñ ci benn problème boo xam ne léegi lu dul ñëw rek yéebaane ci nit ñi ne sàngara bu ko kenn naanati tey ñépp ne bàyyi nañ te fekk mu ngi nekkoon booba koom-koom goo xam ne mooy koom-koomu réew mi parce que sàngara yi ñoo indi di ko jaay kër géeg dëkk béeg njaboot geeg yëpp sax léegi moo doon soon koom-koom parce que moo doon marchandise bi nga xam ne moo ëppoon njarte te ñëpp di ci business waaye keroog bi mu araamalee ñëpp a ko bàyyi ba nga xam ne ñi fekkoon ñu amee store yu mag a mag a mag denc ko foofu sax dañoo dem toj seen yos yëpp ngir gëm giñ gëm ñi ci benn baat boo xam ne alxuraan wàcce na rek ne bàyyi leen mais nemal xamru wal maysir wala ansaabu wala aslaamu rijsun min amali seytaan fajtani bu benn baati faj fajtani boo rek bañ ko waxee la ñëpp bàyyee ne baat boobu biñ ko waxee keroog fekk na koo xam ne yaa ngi taajoon sa butéel xeeli sa kaas fekkoon na koo xam ne yaa ngi guux fekkoon na koo xam ne yaa ngi amee sa sto boo xam ne mu ngi fees del waaye ki nga xamoon ne moo amee kaas bi wala ki nga xam ne moo guux dafa génnee li ci gémmiñam mu del dum raxas ko ñii toj butéel yi nga xam ne ñoom lañ doon naane borom baa bi ci boppam dal di toj li nga xam ne moom la fa amee yépp waaye borom stooba itam ne leen du ngeen ma gën a gëm dem sto toj moom itam butéelam yépp kenn amatut sàngara boo naan sax waatuma laag te ñëpp dañ ko gëm-gëm goo xam ne ne yàlla na bàyyi leen ko keroog lañ ko bàyyi ba sax nga bàyyi boobu loolu nag moom la yàlla di moom la yonent bi sallallahu alayhi wa doon jéem itam wala moom la bugg itam pour léegi jullit yëpp mel ko lépp loo xam ne indi nañ ko rek ñu indee ko noonu nit ñi dañ ko gëmee gëmi noonu nañ ko jàppee itam jàppi noonu waaye lil asaf shadid nag léegi mbir yu bari julli gii li tax ñu bàyyi ko mooy moom itam moom noonu la demee rek li tax mu yàlla yàlla fonkoon ko dal di sant ñu ko moom itam noonu la demee koor gi demee noonu aj màkk gi demee noonu bu ci nekk wax nañ ne bi nga koy def daal soo ko defee ba pare def ko niñ ko waxee bon dafa mel ni jeexal nga tàkk ci bàkkaar doonati koo xam ne mënuloo defati yeneen bàkkaar waaye ñun nag bon ñun li ñoo def ca terewut ñoo am bàkkaar terewut ñoo itam continuer ci suñ jëf yu xam ne jëf yu rafet la yi ñu doon tereel bon ndax bon dañuy seetaat suñ bopp ne bon ndax ñu ngi def jaamu gi nga xam ne yàlla wax na ne boo ko defee dootoo mën a def lu ñaaw lu mel ni julli ca la bokka ba door a ñëw ci koor gii nag bon koor gi itam bu fekkee ne daf ñuy wax ne daf ñuy yóbbu ci martabatu muttaqiin martabatu taqwa mu boole ñu bon ci muttaqiin yi bu fekkee ne loolu la koor gi demee itam te ñun oor nañ ay weeru koor yu dul jeex ndax àgg nañ foofu wala àggaguñ fa léegi kenn ku ci ne